félicité ko ci performance scolaire bo xamni école catholique yang koy def ba pare ci associé ci benen félicitation bo xamni ni euh, cassette yaa ngi vidéo yaa fi mu ne archevêque bi ni nation sénégalaise yëpp lay sant le la gërëm ndax esprit école catholique julli ci dañ fay yóbbu sen doom depuis yàgg xalé xale yi jullit wala famille jullit moom mooy dóor doomam wala jël doomam feneen yóbbu ko ci école catholique catholique boobu ndax ni mu baaxee mu ne donc ñu ngi ko ciy gërëm wante nag li ci gën a doy waar mooy sénégalais yi di màgg di gis ni ñu ngi ci école catholique di gis Jésus di dégg yenn di gis seen morom chrétien mu ne di invité Pâques di leen invité Noël xale yi di màggee noonu kooku moom dootoo dugal fitna seen xel xale yooyu dañu nekk mbokk dañu nekk ay patriotes dañu nekk des concitoyens ba ila yow mi te loolu moo marqué Sénégal Sénégal ku fi baax lu ci bëri bëri bëri soo jaarul daara ci école yi nga jaar kon président euh, euh, euh, premier ministre daf ma yónni ma dem ci archevêque xaarul ba après lii am de c'est trois quatre jours avant kon ñii di wax dañu doon wax li leen neex wala bëgg yëfu seytaane wala bëgg yëfu politique wante wax ji premier ministre wax moom la war a wax

parce dans toutes les sphères de la vie de la nation su dee dafa am de demande booy def ñu laaj la yenn kayit yi dañ ko bëgg saytu pour qu'on ndax c'est conforme ou c'est pas conforme Comme, li rappelé nous, li rappelé lu baax la te wax tamit ak rappelé loo xam même su dee ñenn ni bëgg nañ ci indi seen gis-gis lu baax la mais une société c'est pas parce que ñëpp nee na selew que le ngi dox société day marché société day développé wu am phénomène boo xam sénégalais, Sénégal ñëpp a

et que nous, en tant qu'État, en tant que chef du gouvernement de war mettre neutralité de war mettre comme arbitre bon xam ou faire far fi faire far faire li nga de a def rek mooy di pour que nation sénégalaise dans toute sa diversité du magnitude, moi, moi donne donc le sens de la chose